sëriñ tubaab bii di Masaalikul Jinaan tey ndokkeel jullit yépp ci weer wii ñu tollu di weeru gàmmu muy weer wi nga xam ne ci la gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa amee woon ñu koy waaja fàttaliku di ñaan sunu boroom defal ñu cay xewal ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sax saxal ñu dàkk ci bëgg ko top sunnam ci tasawuf yalla nako sunu borom def ci barkeb weer wi ci barkeb borom weer wi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal bu baax baax sunu ñeebal ak sunu yaakar sunu bëgg bu baax serigne touba khadimul Rasul ñuy tàmbali tay kon wëyel buntu bi nga xam moy jàngale li dox diggante nit ki ak li mën a dox noonu yi nit mën a dox maanaam li li mën a dox diggante nit ki ak boromam ñu tolloon ci àdduna ñu ngi tàmbalee tey wa saaxibul ghinaa'i in yakun shakur yafuq ala di faqatin kaana sabur nee na boroomu koom maanaam am koom-koom ba noppi nekk koo xam ne kuy sant suñu borom nga mu féete kaw koo xam ne dafa ñàkk ba noppi boole kook muñ li tax mu féete kaw nag mënees na ci wax benn rek mooy xëy na bu fekkee nit ki suñu borom dénk na ko alal muy ko am am am am koom di ca liggéeyal sunu boroom ma nga mel ne ko koo ko cay sant maanaam bewu bewu ca alal jooja teewu koo jaamu yàlla mën na caa sax dimbali ku ñàkk te bu dee ku ñàkk day mel na njariñ li muy def maanaam euh, muñ googu muy def day mel ne njariñ li ci moom rek la yem kon wuute bu rëy am na diggante ñaar ñooñu moo tax mu ne ki nga xam ne dafa am am koom bu fekkee kuy sant la muy féete kaw koo xam ne dafa ñàkk ba noppi di muñ mu ne wa kun la daa axdika quutan mithla man yudu tarru lil miitati minha fi zaman وكمسافر غريب سجنا فيها ولا تشكو البلا والمحنا إذ كدراتها كفقر ومرض وكل, وكل ما من الرزيات عرض أو الملمات أو البلاء كالجوع والضيق وكالضراء فإنه نعمة ذي الجلال على العباد خاله اليدالي إما واحد لبنان موي <coughs> موي وكل أخ dika xuutan midla man yudtaru lil mitan fiha minaa fii fi zaman maanaam sunu borom bu lay maam dundub àdduna bi la bëgg wax jëmmi àdduna dund gi nga fiy dund saa yoo demee bay jëfandikoo mbir moo xam lekk la moo xam naan la moo xam ak col la moo xam lu mën a doon rek ci àdduna loo fiy jëfandikoo na nekk loo ittewoo ba loru ca mel ni kii koo xam ne dafa ittewoo xewlu te amut lum lum xewloo ba gis medd na Islam l'islam maye mu jëfandikoo mbedd nga xam loolu rek moo tax jëfandikoo mbedd ndax mbedd euh, dafa aram waaye am na maanea bu ko teree aram mooy kii dafa xiif ba nar a ba mën ak mu melal ci dara ci na nga nekk ku ko soxla lool mel nekk itam koo xam dafa tukki ndax da ngaa war ndax da ku tukki wala mel kuñ <coughs> kaso te nga maytu ko ndiku bu baakha bax di jàmbat metti ti metti ni lay dal li tax ndax neena na nex aduna yoyu lu mel ki ñak wala febar wala lépp wala bépp musiba buy am rek ki yi am ni wala xew-xew yu metti wala xif wala xat go xat ci aduna wala lor-lor yi neena yoy yooyu fa innahu ni'matu dil jilali ala al ibadi khalahu yadali Cheikh Cheikh Mamadou Yadaali nee nit ki febar yi ko suñu borom di tek wala bu teg ko ak ñàkk wala mu ko teg ay musiba yoo xam ne daal xëy na metti na ci moom na jàpp ne loolu xéewal la gu ko suñu borom di teg xéewalu suñu borom la ci kawam li tax mu nekk xéewalu suñu borom nag mooy li anna man faqadahu li man li anna man faqadahu laha sakan fa suyirat jannatahu id ma sakan fa kaana yakrahu liqa allahi bi bughdihi al bila tanahi nee na li tax mu nek xewlu sunu borom moy bu fekke nit ki aduna bi aduna dafa neex ci mom lol manam su aduna neexee ci mom lol day muju nek aljanna day muju nek aljanna moy in li ana man faqadahu laha sakan fa suyirat jannatahu idma sakan day muju nek aduna day muju nek aljanna su nekkee aljanna mo mu nek ko xam nak sun day dogal day borom day dogal mu nek ko xam du bëgg ak sun borom day day sib ak sun borom ndax day ragal dee day bañ faatu ta kat sun borom ku bañ a dajeeg moom moom mu baña a dajeeg yow wala yaadu billah moo tax xéwal yi euh, maanaam nit ki di am ay nattu ay xew-xew yu met di dal ci kawam lu mel ni ki am mbokk mu jege mu faatu lu mel ni ki am alal ju bari suñu borom tax nga ñàkk ko wala am tawat ju lay gaar wala yu mel noonu yooyu yëpp xéewal suñu borom la bi muy defal jullit bi ndax su ko tegul yooyu rek day mën naa mujjee nekk ku faatu mën mën naa mujjee nekk koo xam ne day fàtte suñu borom ndax neex neex neexit àdduna ba nga xam ne àdduna day mujj nekk ci àjjanaam te bu nekkee àjjanaam du xalaat faatu du xalaat sunu borom du bëgg a dajeeg sunu borom wa fiihi aydan idtiraarun wa rujuu li rabbina jalla bi kurihin lil mutia mu ne ba tey maanaam ci musiba yooyu sunu borom dina teg bokk na ci njariñ yim am bokk na ci xewal yim xewal gi mu nekk xewal mooy day delloo nit ki ci sunu borom day tax nit ki di dellu ci sunu borom ndax saa yoo yëgee ne daal musiba mi dal na la mën ngaa dem julli wala nga ñaan suñu borom teggil la ko loolu tamit day tegtal ne nit ki mi ngi dellu ci boromam mi ngi yëg boromam kon ñàkk a teg musiba yooyu suñ suñ borom dina teg ñàkk a teg musiba mën na laa jural fàtte suñ suñ borom mën na laa jural ñàkk a dellu ci suñ borom mu ne fa xayru axwaalin li muuminin abad xaalatu dullin wa dutirarin lissamad ألا يرى حولا عليه يعتمد أو سببا ثوى الرحيم المنفرد كمثل ذي الدلال في البيضاء دا وحشة وكغريق الماء نانا نعم. جلدني جلد بحال جمنا نك منام تولوا بجنت جلد بم تولوا موي تولوا يك لور منام أي أي أي أي, أي, أي musiba diko dal manam ay metti dal diko dal wala ay loru diko dal ndax bu boobaa mom manam bu ko lol dalé manam su fekkee julit bi da nek ci halatu dhulli wa halatu al-ittirar mu baña gis kenn kudul suñu borom manam mu baña jema sukkandiku ci kenn kudul suñu borom manam alla yara hawlan yaatamid alayhi aw sababan siwa rahim manam mu baña jël ben mu jema baña jëm ben pexe bo xam ci lay sukkandiku budul suñu borom wax la hawla wala quwwata illa billah li tax moy wala nga xamne day muju melni ko xamne da don kamis li zid dalal fil bayda melni ko don dox ci désert ni nga xamé désert ni ko suñu borom danaka xamé kay du ci am danaka du am garab baaxawut am garab do gis ndox man nga bañu gis sax nit kuy dox ta suuf ci yëpp day nuroo ta ba day yaatu bari nit ku doon dox ci désert ba suñu borom dikkal la nga réer manam da nga doon dem fenn far xamatoo fi nga jëm kooku ala kulli xaal suñu boroom rek lay xalaat ci mu gindi ko yóbbu ko fa mu jëm daa wax chatan mooy boo xam ne boroom njaay àllu lañ koy wax mooy ku wéet wala koo xam ne suñu boroom laa dooloon mu dugg ci ndox ba lab ci surtout mu labee ci diggante boo xam ne nit ñi baaxoowuñu faa agsi kooku du xalaat kenn ku dul suñu boroom mu génnee ko ci moo tax ma ne mbir nit xaala boobu moo gën ci moom maanaam xaala nekk am ko loru ak loru dikkal ko wala yu mel noonu te loru googu gu dikkal xalaatu ci kenn ku dul suñu borom sabab bu muy def rek da koy jaar ci suñu borom loolu moo gën ci julit bi wa aqbaxu l axwaali nag xaalatu nadar shaxsin li izzi nafsihi aw lil bachar أو استناده لغير قد حصل أو, لل أو, أو لعلم أو حال أو عمل waaye maanaam xaal bi gën a bon ci nit maanaam tolluwaay bi gën a bon ci nit mooy nit ki xool boppam ba gis boppam daal di jàpp ne daal lu mu am tedd nga gi moo ko ko may tedd nga boppam moo ko ko may wala lum lu ko dal tegg nga tedd nga boppam mën na koo génn ci situation yooyu noonu wala muy jéemoo weeru ci keneen ku dul yàlla wala ci leneen dul yàlla wala muy jéem a weeru ci xam-xamu boppam jàpp su bëgge dara dal man nako jaar ci xam-xam bopam wala su ko dara dalé man nako jaar ci xam-xam bopam ba lol téggé ko wala jëfam néna nit lol mo gëna bon ci way bu mu toll léppam da ko wara jox sun borom fa dhanbin wa bala'in afdalu min izzi rushdin wa 'ata'in yahsulu manam nit ki am tedd nga gu mag wala ak njub nek ci ak njub manam melni ku nek ci njub wala ci ay may day mel ne loolu li ko gën ci moom mooy mu nekk ci ak toroxtaange wala yu mel noonu ndax nit ki léeg-léeg mu nekk ci tedd nga joo xam ne wala may yoo xam ne day mujj fàtte suñu borom waaye nit ki saa yu nekkee ci mettit wala saa yu nekkee ci ak ñàkk wala saa yu nekkee ci ay musiba li gë li ci gën a bari ci nit ñi danañ xa seen borom danañ xalaat seen borom kon day mel ne nekk ci ay may nekk ci ak njub nekk ci euh, ak tedd nga li gën. li gën nag moom mooy nit nekk ci ba noppi di xalaat suñu borom bu baax a baax baax waaye day mel ne nekk ci te xalaatu suñu borom nekk ci ay mettit sax da ko mujj gën wa fihi doofu nafsi wa tahqiru wa manuha al isyana wa tafkiru bokk na tamit musiba yooyu suñu borom di teg nit ki njariñ lim am ci bakkanam nit ki mooy day tax bakkan bi di doyati day day tax bakkan bi day xeebu nga xam ne doyadi googu muy doyadi ñàkk kàttan googu muy ñàkk kàttan da koy mujjee xelu nit ki sax doot nekk ci moy yàlla loolu tamit mat naa bàyyi xel maam léeg-léeg nit ki nekk ci ay situation yoo xam ne xelam doot nekk moy yàlla waaye saa yu waxtu jaamu yàlla jotee mu gaaw ko def li tax mooy am talul talul talul leneen talul leneen wa fihi iqbalu nufus al akhira wal ajru in radiya wal mubadara bokk na tamit musiba yooyu wala feebar yooyu wala yu mel noonu yi dal ci kaw nit tawat yooyu dal ci kaw nit iqbalu nufus al axira mooy nit ñi seen i bakkan jublu àllaaxira mooy nit ki léeg-léeg mu tawat tawat joo xam ne xelam daan nekk ci faatu te saa yu tawatee tawat joo xam ne xelam nekk na ci faatu dana jébbul dana jéggalu suñu borom dina delloo ay àq dina fexe wax lu lu lu baax maanaam tudd suñu borom ak yu mel noonu maanaam sàkku ab yool wala wala yu mel noonu ak di gaaw a tuub wala mubaadara mooy gaaw ci ci ak tuub وطاعة الباطن والصفاء أيضا مع التذكير والشفاء تا ما نتمد نيت كي سوتنا كي جامونو يوي جامونو يمتي جامونو تاوات داي ام توبوك بير مانام خولم داي ييك سونو بروم خولم داي جيما سيل تا لول مو داي مل مو گن صاح بو فكي نيت كي ميغي جام يال يو بري دون داي فنانو تاخاو گودي فنانو جان القران فنانو ويرد تا فك ليمي ديف خول بي اغول داي مل نياك كو ديف تا فك سا yàlla rek nekk ci mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy gën wa taa wa taatun batinatun afdalu min zahiratin ala ala ittifaqin lam na min maanaam kon maanaam topp yàlla ak biir moo gën fuuf topp yàlla ak zahir li tax mooy xol diggante xol bi sa xol nga fas yéene yow ku dul yàlla mënul ci yow dara mënul laa jariñ mënul laa lor yàlla rek moom mooy ki ñuy wàkkiirlu ci moom yàlla rek moy ki nga xamne mom moom djublu ci ay aajo lolou su fekke yang koy xalat sa xol ta fas ko ci te gëm ko day melne moy gën nga koy jëfe ta fek gemoko motax moo wa taatun batinatun afdalu min zahiratin ala ittifaqin lamna min lamna min moy liñ wax amna ñu maanaam ñoo wax lu amut li annaha adxalu yaa xalili ala nufusi nnaasi lil xumuuli ndax loolu moo gën a diis ci bakkan nit ñi maanaam fexe ba yow jaam yàlla gi fas maanaam wér ci sa xol day melni dafa jaxé ci bakon nit ñi te day da ngay xamné nak lu gëna jaxé ci bakon nit rek loolu mo ëpp tiyaba mo ëpp njariñ ci nit ki ya khalil ala nufuusi nas lil khumuli lil khumuli moy ci neub gi nga koy neub moy gim gi nga koy gimal ci la metti mo metti manam fexe ba sa ba xol du xalat lu yàlla dafa metti dafa jofé dafa jafe waye nak mo gën ci doomu aadama yi kon xamna fofu lañuy yamal nak ndax buntu bi fofu la yam di yaakaar ne li ñu wax leer na alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.